c'est-à-dire mobilisation Jolof ñu ngi mobilisation. Linguère. mobilisation mobilisation bu mel nii ci commencement bi li muy firi mooy ba tu seras surpris par la grande mobilisation. Les gens firi ne ils sont tellement engagés que dañ la jël si à l'entrée de la ville. et ça c'est important par expérience nous nga à chaque fois que nous avons eu une mobilisation comme telle à l'entrée de la ville au milieu de la ville la mobilisation risque d'être exceptionnelle ici à Linger. loolu ici fii nga El Malingaï, Ndiaye cosaanoo fii nga xamante Habib Sy Cheikh Oumar Sy kon

Thank you. waaw mbokk internet yi mu ngi noonu ñoo ngi dugg Linguère euh, foule bi ngeen di gis ils nous ont accueillis à de la euh, commune de Linguère dëkk bi à 3 kilomètres la ñu dogalee di wëy euh, ya yàlla na ñu yàlla may Sonko jël ndam li ñoo ngi Linguère bu kan Linguère bu El Malick Ndiaye Linguère bu ñu dee ñu ni Jolof Linguère bu qui euh, nga xamante ni l'ancien maire euh, Habib Sy Lingère bu Cheikh Omar Sy du tête de liste proportionnel, mon Moy suppléant Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko accueilli triomphalement ici à Lingère, à l'entrée de Lingère, du biir de Linger, ñoo ngi carrément ci buntu bi de am un rendez-vous am avec la coalition Yewwi Kanubi, Wi te pour jouer leur partition dans ce rendez-vous ce soir à Lingen. दोस्त एल मालिक जाए Yeah. Hindi mahilig ka kamanta ng mama. Wow, wow! Wow, wow! département où Lingère, di département où Lingère, mi ngi région de Louga mon moyen, euh, ñetteelu département bi euh, nekk électorat bi à 124 913 euh, électeurs Moi, am à nga xamante ni moo di Linguère bàyyi ñu ambiance bi est bi à l'entrée de Linguère ci bi Yamaya, Yamaya, babam, filha babam, é filha babam, é, é

Euh, mingi comté, compté euh, nek région Bouloga, Louga kébé maire ak Louga ñoom département yu composé euh, la région de Louga L'Inger mingi carte électorale bi lu 124 934 électeurs L'Inger Didi, un bastion assez important dans l'échiquier politique du Sénégal bastion Yewwi Ascanoui, le Dak Linger, a ah, présenté sept candidats sur la liste de Yehuy Askanoui. Il yi nga a élection élection législative 2022 donc, euh, la situation ici à Linger, on vient d'entrer dans la ville de Linger, Linger, la capitale euh, du Jolof. Bounia Linger, euh, képp ku euh, Pastef les patriotes c'est quel Dadi di dem ci ki nga xamante ni El Malik Ndiaye El la tête de liste nationale de Yewi Askan la tête de liste départementale bu Linger, ànd ci ak ki nga moi, le président Ousmane Sonko tête de liste nationale pour de coalition Yewwi Askan Wi ak Aïssata n'est que la candidate numéro 2 dans ce département de Linguère Lingok, en ébullition Linguer en ébullition nous sommes ici dans la capitale du Jolof Linguer de El Malik Ndiaye Linguer de Aïssata du président Abipsi, Sy de la tête de liste des suppléants Cheikh Omar Sy Linguer qui présente sept candidats pour la liste nationale euh, dans la liste de Yéhu Askanui pour les élections législatives de 2022 du 31 juillet. Linger à Momo Genetei, Narsen Dom, le Askanui. C'est ce qui se passe, c'est énorme. Regardez Mais donc la messe est dite ici à Linger, à la capitale du Jolof. Nit Ninoru. Linguère a ngi linger Linguère bu El malik Ndiaye a ngi noonu Linguère capitalu Jolof mi ngi noonu di len fatali ci liste ye Askan Wi amna sept doomu euh juróom ñaari doomu Linguère yoo ñoo euh, compétir représenter la coalition ye Askan Wi fele ci Assemblée nationale donc linger est bien représenté il faut que linger euh, Dugu, ci li nga xamanteni modi dynamique de changement bu au Sénégal avec la coalition il Askan a eu c'est le V de la victoire de El Malik satisfait l'homme qui, a toujours soufflé à l'oreille du président Ousmane Sonko le secrétaire national à la communication de PASTEF les Patriotes connu pour sa pertinence, connu pour euh, sa dignité. El Malick Ndiaye qui brandit le drapeau national du Sénégal n'est pas amul débat El Malick Ndiaye nekk si du président Ousmane Sonko Mok Aïsataba, Ba ñoom ñaar liste départementale bu Yewwi Askan Wi fii nii ci Linguère 7 Linguère présenté Moudi, euh, sept ci ci ay doomam mu hier Askanui, World er dem élection le 31 juillet 2022. Linger, Linger est en train, Linger est en train d'honorer son rendez-vous avec Yewwi Askanui. Linger, la capitale du Jolof, est en train d'honorer son rendez-vous avec Yehui Askanwi et cette dynamique de changement qui est en train de souffler sur le Sénégal pour une euh, pour une Afrique de souveraineté retrouvée, euh, pour la souveraineté et la dignité retrouvée. Nous sommes aujourd'hui au cœur du Jolof. Linger avec El Malik avec Aïssata avec euh, Cheikh Omar Sy, tête de liste des suppléants euh, sur la liste nationale de Yehui Ousmane Sonko, l'espoir du peuple sénégalais, Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Yehui Askanui, Ousmane Sonko, le leader des patriotes du Sénégal, Ousmane Sonko aujourd'hui au cœur du Jolof, dans le cœur du Jolof. Euh, dans Linger, Linger, la capitale du Jolof euh, Tay, dafa am lu am solo luy xew fi nga xamanteni mom modi moo di Linguère buñ c'est 124 352 euh, électeurs bu ñu nee c'est le dara Jolof bu ñu Linger, Linguère c'est Barkédji bu ñu nee c'est la commune de Linger buñ Linger, Linguère ñun ki nga l'ancien maire Habib Sy bokk ci Yewwi Askan Wi buñ ne Linguère euh, ni ki El Malick secrétaire national euh, à la communication de Pastef les patriotes du Sénégal euh, Li, Momo, moo xewtee ci on vous laisse vivre un peu l'ambiance directe de Linger, la commune qui est éponyme du département de Linger. forte mobilisation ici à Linger. Linger, commune située dans le département éponyme, le département de Linger, euh, qui compte 124 352 électeurs un, département très important. Nous sommes au cœur du Jolof, nous sommes dans, le, dans la capitale même euh, du Jolof, euh, Linger, euh, département qui se situe dans la région de Louga. Louga qui compte trois départements et Linger constitue le plus fort taux d'électorat de la région de Louga. Louga, c'est Kébémer, le département de Louga, mais aussi aujourd'hui Linger. Linger, en termes de symbolique, c'est une localité assez importante, c'est le Jolof. c'est le cœur du Jolof. le Jolof qui a fourni au Sénégal des hommes politiques d'envergure nationale et internationale. Linger qui a fourni aussi euh, des hommes intègres euh, tels que Elma Lekiaï, qui a fourni des hommes qui ont, travaillé et des hommes qui sont adeptes de la démocratie et qui ont travaillé pour la démocratie au Sénégal. Le doyen Abibsi, on l'aperçoit derrière, c'est l'ancien maire euh, sous le régime de Ouad d'ici à Linger, c'est l'ancien maire de la commune de Linger. Son frère est aussi tête de liste supplé de la liste liste suppléante, Omar Sy un expert en aviation qui supplée le président Ousmane Sonko, euh, même si aujourd'hui euh, tout le monde a constaté euh, cette mobilisation. Il reste beaucoup à faire à Linger parce que Linger doit aujourd'hui définitivement entrer dans la dynamique de Yehui Askanoui. C'est une dynamique à laquelle Linger avait raté un rendez-vous avec un score plus qu'honorable. Mais on est sûr et certain aujourd'hui c'est l'heure de leaders pour ces élections législatives 2022. voilà El Malinga qui réussit le pari de la mobilisation ici à Liguerre. Liguerre, bëgg que ci score bi Linguère bëgg ci dynamique on vous laisse admirer vivez l'ambiance en direct de Liguerre, le cœur du Jolof di Jolof ñoo ngi fi nga xamante ni moom moo di eh, Jolof eh, Jolof ku ne Jolof ñu ni Jolof dëkk bu am solo la ci politique du Sénégal maa ngi leen di fàttali suñu doyen Habib Sy moo nekkoon maire Jolof eh, waaye itam rakam moom mooy ki nga xamante ni Cheikh Omar Sy di expert en aviation moom mooy ki nga xamante ni moom mooy suppléer le président Ousmane Sonko jiite liste suppléant bi nga xamante ni moom mooy représenter la coalition Yewwi Askan Wi tey Jolof pour El Malik Ndiaye tay linger bu El Malik Ndiaye ñom recevoir le président Ousmane Sonko El Malik Ndiaye nak ku ko xam xam sa proximité avec le président Ousmane Sonko tay mobilisation bi ni rek le mel parce que l'Inger, c'est un yi le ñu jël mettre len au devant de la scène L'Inger, mom moy seule localité au Sénégal seul département au Sénégal bo xamante amna am euh, ñaari nit donc c'est une première pour xamante aujourd'hui Linger vient euh, de rendre la monnaie de la pièce à l'honneur que lui a fait la conférence des leaders de l'Inger Askanwi, Manglendi euh, sept députés candidats à la députation le département bu de présenté El Malik Ndiaye ki les candidats euh, au niveau de la liste départementale ñu noonu boo leen xoolee ñi nekk nanti ci kanam ñoo gën a donc moi eh, mooy li di eh, El Malik qui réussit le pari de la mobilisation ici à Linguère c'est quelque chose d'inédit Fidou on woon titre foncier de waaye bàyyi bayla won dafa melni ni El Malik Ndiaye mi ngi koy foqati ci ki nga xamanteni modi Ali Ngui ancien ministre de l'intérieur El Malik qui est en train de réussir le pari de la mobilisation ici à Linger. Il est en train d'écrire en lettres d'or l'histoire politique de Linger, mais aussi du Sénégal. El Malik Gaï, c'est un leader, pour Khamenei. il a un coefficient individuel national à très important. Nous sommes au cœur du dialogue et c'est Yehuas qui déroule et les jeunes sont en train de chanter Ousmane Sogo. je vous le dis, admirez cette foule, admirez cette foule qui est en train de scander Makidena Nanko. On est à Linger, la capitale du Jolof, au cœur du Jolof, El Malik Ndiaye qui réussit le pari de la mobilisation. Li musul am je suis sûr et certain que mon ami Aly Ngouille Ndiaye qu'on l'erne. Li soir, histoire la messe est dite Yewwi quand nous vient de conquérir Linger, Linger de El Malik

yeewal est entré dans l'histoire lingère a rejoint la dynamique de Yewwi Askanui. L'Inger a rejoint la souveraineté nationale lingère aujourd'hui déroule le tapis rouge à Ousmane Sonko et à El Malick Khalifa Sal, Aïssata Ba Cheikh Youm Cheikh Moussa et Dechefal Khalifa Sal. wax ji jeex na y' a pas combat ici à Linguère Yewwi Askan Wi prend le tout. Mané Mané Linger, Linger, Linger est entré dans la dynamique Yé à Wi Linger vient de détrôner Kaulak. Linger vient de détrôner Kédougou Linger vient de détrôner Kafrin, Linger vient de détrôner Ouressogi, Linger de El Malik Ndiaye le président Ousmane Sonko tout heureux le cœur qui pour l'Inguer, le cœur qui bat euh, pour le Sénégal. C'est énormissime, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Autant de classes qualificatives pour vous dire quelle est la joie, quelle est l'ambiance, ce qu'on vit aujourd'hui à Linger, dans cette avenue-là, avec ces milliers de cœurs qui battent, ces bouches qui chantent, c'est extraordinaire. Linger vient d'entrer dans la dynamique de Yewi Askanoui. Et dire que Bojo bonjour, ils ont démarré leur campagne ici à Liguerre. Mais aujourd'hui, le président Ousmane Sonko, El Malik Ndiaye, Aïssa les leaders de Yehu Askanui, ils sont en train de gagner le pari de la mobilisation le peuple de Linger est sorti debout le peuple de Linger, la jeunesse est sortie elle est en train d'acclamer les leaders de Yewwi kanwi elle est en train

Mais nous à perte de vue à perte de vue les Sénégalais les Linguérois ils sont en train de battre le macadam ici avec espoir détermination et engagement avec Ousmane Sonko avec Khalifa Sall avec Dejefal, avec Maïmouna Bousso avec Cheikh Tidiane avec Mousadine, avec El Malik Gaye et Aïssa Et nous sommes dans le quartier et le domicile de Alingou <laughs> Écoutez ce que les jeunes sont en train de chanter. C'est dans le quartier de Alingou ci biir la bokk Ce qui se passe ici, c'est inédit. Ce qui se passe ici, c'est inédit. El Malingay n'en revient pas. El Malingay n'en revient pas tellement que la population de Linger est en train de lui rendre son engagement, est en train de lui rendre sa fierté d'être un fils de Linger. Les jeunes sont sortis parmi milliers, nos moments El Malingay qui brandit le drapeau du Sénégal. Quelle la victoire acquise ici sur les terres du Tcholop. Telle la victoire acquise ici au Sénégal. El Malik Ndiaye qui est en train de triompher à côté du président Ousmane Sonko Fini comme nga xamanteni modi Et voilà. le président Ousmane Sonko qui vient de découvrir le domicile du président, du ministre Ali Ndiaye plutôt, tout étonné qu'il est El Malik Nous sommes à Linger, Linger, département éponyme, la commune de Linger, euh, c'est et le département, c'est 124 934 euh, électeurs ici à Linger. C'est le plus grand électorat. Après, dans le département, dans la région de Louga plutôt, il y a le département de Louga, mais aussi le département de Kébémer. Mais Linger constitue le bastion électoral que tout homme politique rêve de conquérir. Et aujourd'hui, on est dans, sur les prémices euh, de cette conquête acquise de haute lutte par Elma Lingay et l'ensemble des leaders de Yévi casserole yaa ngoog fu mu dem casserole yi président Sonko casserole yaa koy tergu fu mu dem ndeysaan कर रहे हैं मौसम mobilisation fi ñu nekk ni moo di Jolof fi nga xamante ni Linguère Linguère di xolu Jolof tey El mali Ndiaye moom moo fi nekk bu ñu nee Linguère aussi xel yi day dem ci président Habib si di fi nekkoon maire ci jamono yi ablay Wade Ousmane soko ñëw tey Linguère fi nga xamante ni comme ni ma la ko waxee moom mooy xolu Jolof. donc Linger, Linger qui déroule le tapis rouge, ces milliers de cœurs qui battent et qui battent le macadam ici à Linger, avec le président Ousmane Sonko et El Malingaï. Fidèle du titre foncier, Linger du titre foncier, Amoul contrat de bail, El Malingaï vient d'arracher Linger entre les mains des barons politiques Yufinekon. El Malik réussit le pari de la mobilisation pour Yewwi Askanui et le président Ousmane Sonko. mi ngoog ñoo ngi Linguère Linguère ah, bi nga xamante ni ah, mi ngi nekk ci département wu Linguère ah département wu Linguère bokk ci région de Louga Louga qui compte trois départements le département de Louga le département de Kébémer ak euh, département bi nga xamante ni moo di département Linguère foofu la ñu nekk nii ci commune bi ñuy woowee ah, Linguère boo xamante ni fi département bi électorat bi estimé à hauteur de 124 934 électeurs comme le ambiance après ñu jox ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy dégg réew mi ëllëg incha allah def leen nii tuuti def leen nii tuuti eh xam nga lan laa bëgg su ma nee un benn tàccu ngeen may tàccu su ma nee deux ngeen tàccu ma ñaari tàccu est-ce que yéen may dégg est-ce que yi si kaw benn tàccu laa zero

mbégte bu ci département de Linguère ñu yegg si ak la Wi le président Ousmane Sonko Bénin sage Bénin doyen un homme digne un homme qui pour le Sénégal a fait 32 mois de prison 960 jours avec dignité avec honneur Macky Sall jéem nous dans ses principes et ses convictions mais quand bu n'êtes le le président de la conférence des leaders de Askami, a dignité responsabilité mauvaise le président Khalifa Ababakar, nous nous, nous ci buntu kër Serigne Moustapha Sy defee fa déclaration ngeen waroon xamni affaire bi dina ala daw may kon ñu ñëw ak le coordonnateur du PUR dirigé par Serigne Moustapha Sy ñu ñëw donc ak le président Cheikh Ahmed Tidiane Youm ñu ñëw ak une lionne qui a fait le tour du Sénégal avec nous je poussière bi Dormi, ndox mi bu pas bi mais elle a tenu debout elle reste debout la présidente Maïmouna Bousso Nous ñëw ak borom Copper Express. Nous xamni le financement de notre campagne par les Sénégalais pour les Sénégalais le président cher Tidiane Dièye Nous avons aussi à quelqu'un qui a marqué les esprits oui yàlla defee tay wut majorité à l'Assemblée di wutee député modèle c'est parce que tout le monde sait que lui am na cër am na liggéey bu mu jot a def assemblée muy doomu Thiès muy le président Moussa Tine gis ngeen Yewwi Askan Wi yàlla moo ko defal lu mucc ayib yàlla nu yàlla dimbali jàppale nu mais ñoo ngi leen di gërëm di leen sant fii ñu ñëw nag dañ fee sawar a ñëw buñ fi yegsee mënuñu bañ beneen nuyoo ki nga xam ni sama xarit la sama promotionnaire la je le connais très digne très moom moo fi nekkal wàllu bi nga xam ni ki ko jiite mooy le président Abdoulaye Wade nga xam ni moom la ñu defal intercoalition ma bëgg tudd mon ami Abdou Cam. di nuyu di féliciter tous les leaders de la coalition yi nekk fii di nuyu suñu candidat yi candidat yi yàlla def na fii nga xam ni je en première position sur nos liste des suppléants pour l'élection élection Oumar si. Dinoyou, Dizian, Aminata Djer, elle est également candidat. Thierno ça Fatoumata Mbacké ñu ñëw aussi ci la candidate Aïssata Ba du ma fàtte mon ami et jeune frère kuy def liggéey bu mucc ayib ci communication Yewwi Askan Wi muy El Malick sargal yenn kilifa yu nekk fii ci Linguère yor fi ay mouvement ñenn ñi doon maa ngi ñëw maa ngi ñëw di nuyu ñi nga xam ni ay kilifa lañu fii di fi def liggéey bu mucc ayib ñëpp xam ko ku mel ne Thierno Sangaré Farmagnan ku Suleiman, ne Souleymane Koule Ali Koule Diop nga Ken. Ken, kenn umpalewul taxawaayam ci biir coalition bi le président Khalifa Ababa Sall kon ni ñuy def mooy jox fii ci Linguère kii di la candidate Aïssata Ba mu def la déclaration officielle moom ak Ouma Sy ñoom ñaar ñëpp fii la ñu nekk ci commune Linguère bu ñu paree ñu jox. le président Habib Si, Nous wax ak du département Linguère Pour nous parler, nous avons la tête de liste nationale de la coalition Yewwi Askan Ousmane Sonko depuis Linguère nous adressé au Sénégalais bëggoon balaa ñuy def loolu léegi rek la président de la conférence des leaders du fàttali mooy di remercier la gendarmerie de Bakel bi nga xam ni moo encadré suñu tournée bi ñu jógee Goudiri ba pratiquement bi ñuy génn Bakel di remercier di féliciter la gendarmerie de Matam qui a également fait la même chose

en tout cas lii ma gis Linguère mooy Linguère moom wàcc na Ali Guy Ndiaye xam na ni Linguère wàcc na Samba Ndiobène xam na ni Linguère wàcc na mon ami et frère Ali Sele Diop xam na ni Linguère wàcc na kon borom lingeer yi yegg si ay lingeer yu taaru nag mais lingeer yéen a taaru waay Comme sans plus tarder, nous donnons la parole à Madame Aïssa Touba, à sa à l'honorable Oumar Sy. Aïssata, Aïssata. Ouais, T'as que Aïssata, Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bandiraɓe jolof assalamu aleykum bandiraɓe Linguére assalamu aleykum département de Linguére min ɓiɗɗo moon Aissata Ba tedɗo liste département de Linguére mi salminimon mi juuroymon mi yettimon on fof doon médaillé du Thierno Mamadou Sankharé président mouvement de Siggil Linguère caggal Allah e nelaɗo mum ɗum fof ko sababu nde Thierno Mamadou Sankharé mbeɗa salmin Thierno Mamadou Sankharé mi yetti Thierno Mamadou Sankharé fulɓe ceerno mboya ka todda hara jolof jeli teskere to woni fof e département liguére mi salmini kala mo gandanɗa aɗa woni toon gona e fodde fulɓe mi salminimon mi wi fodde fulɓe soutien aissata ba merci beaucoup à fodde fulɓe foof merci beaucoup Nous t'offrons benen candidat Omar Sy bu paree ñu jox Abdou qui est le représentant de Wallu ici dans le département de Linguère Omar Sy donc euh, Omar Sy tête de liste des suppléants la liste Yewwi askani qui moi mooy suppléant président Ousmane Sonko mu expert en aviation di rakk itam ci ki nga le ministre d'État Habib Sy Assalamu alaikum, mbokku Linguère fii ma taxaw tey muy sama sur ma terre origine dama bëggoon a wax sama mbégte sama mbégte ci dalal les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi fii ci Jolof di wax ne tey bes bu rëy ci Jolof ndaxte bi ñuy duggee Linguère ba léegi gis la forte mobilisation bi accompagner la caravane di wax né ñi fi nekkoon di lapi. lapi. tey seeni laaf tooy na vous ngi ci guddi gu bas setagul sànq bi ñuy ñëw rek dafa am ci gaay yi ku naan ma Aly en direct ci sama live kon loolu mooy wane que ne nekk ñoom jaaxle nañu. am nañu yaakaar bu rëy que le 31 juillet fii ci Jolof yuuxu dina jib fu ñu ko foogeewul di wax ne. ne bi nga xam moo jëm 2024 deqi na te fi mu nekk station bu mu taxaw nit ñi tugg nañ ba mu fees mu jëm 2024 fii ñu taxaw ci Jolof jàpp naa ne fii tamit danañu feesal wagon yi jëm ak moom di jaajëfal leader yi bu baax ne temps bi mayewu ko ci président wax ay Sénégal di taw ngir askan wi di particulièrement benen loxo le président Ousmane Sonko l'infatigable président Ousmane Sonko

lan moy sa priorité dépense de prestige tapes à l'œil na yow sa askan ñi ngi ci ay lolu taxul ñu fal rew li tax ñu fal ko que mu gestu xam lan la askanam di dund mu wut ay safara te lolu nak japp nañ ne ci président Macky te le 31 juillet danañ ko ko won daw ak mom ko 2024 ñu yenu ko ba

Le xam ni le président Abdoulaye Wade bëgg naa ngeen tàccul le président Abdoulaye Wade bu baax a baax tàccul leen ma Karim Wade bu parce que on a mis en place une coalition historique ci histoire du Sénégal intercoalition moo su fi am loolu bu amee ñun ñëpp suñu taxawaay la kon ñu jox kàddu gi. Qui nga xamni mo moo représenter fi muy Abdou Cham, tàccu len mako bu baax a baax. asalaamaaleykum mbokk liggéey maa mang leen di nuyu di len jaar di remercier de cette belle mobilisation di dalal les leaders fii de Linguère il leen wax plus de ngeen des hommes qui ont toujours refusé l'oppression L'ingénieur la tey gis la jeunesse de l'ingénieur est debout pour dire non à un troisième mandat du président Macky Sall vous féliciter yéen ñëpp mobilisation moi l'intercoalition wàllu yeewi vous avez compris les enjeux de l'heure nous avons de grands enjeux Alors le yéen n'y a xam xam ngeen le président Macky depuis 2019 après son second mandat il est obnubilé il ne pense qu'à avoir un troisième mandat il ne pense qu'à rester au pouvoir au-delà de 2024 est-ce que tu un ko nangu L'Église dit non à un troisième mandat du président Macky la coalition, l'intercoalition Wallu dit non à un troisième mandat du président Macky Sall damay wax opposition bi le ci président Macky Sall Sonko xajul le président Macky Sall Ablaye Wade président Macky le frère Déthié Fall xajul président Macky le frère Abissip, Sy xajul président Macky Sall il faut qu'on soit ensemble dans la dignité et dans la sincérité il faut qu'on soit sincère dans ce que nous allons faire. Nous ne voulons, voulons pas gagner à guerre. Nous voulons avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il faut que nous au 31 juillet ce que nous voulons. Le rôle, le seul sens aujourd'hui de l'intercoalition, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. L'autre moyen le président Macky Sall nous xam par Sénégal par parce que le président Macky Sall loin de guerre xam ngeen ne le président Macky Sall démarré na benn plan décennal de lutte contre les inondations depuis 2012. Linguère le la président Macky Sall def ana waa Mbuuseen ana waa Mbuuseen ana waa Mbuuseen an mu jot ngeen inondé ana waa Djilla ana waa ana waa quand il pleut le département de Linguère est coupé les gens ne peuvent pas se déplacer est-ce que d'accord Aly Ngouille Ndiaye qui dit non à Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye a fait huit ans à gérer le ministère de l'intérieur à gérer le bras corps sec lan la def Linguère xanaa dañ ay poosam ba fees bëgg jëlee nit ñi est-ce que da ngeen nangu ku leen jënd Jolof Jolof kenn da ko jënd damay wax ne à partir d'aujourd'hui nous démarrons la marche inéluctable pour une majorité à l'Assemblée nationale Et je dis que l'intercoalition Wallou, nous. dit que que notre de mon frère de Kéfal, on partage tout parce qu'on on promotionne la politique ça suffit pour expliquer ce qu'on parle. Je voudrais dire vive la coalition vive l'intercoalition vive le département de l'Union. Assalamu alaikum. Merci beaucoup mon frère Abdou quand à présent, nous donne la parole au sage, la parole à l'homme pondéré, modéré, l'homme aux différentes formules, les plus douces dans le courage, l'homme aux formules qui savent requinquer ses camarades

asalaamaaleykum mbokk Linguère asalaamaaleykum mbokk Jolof ma sànni ci tuuti kàddu rek ndaxte xam naa ne tey ñëw leen pour déglu suma Ousmane Borom Sonko ngeen yóbbu déglu ko. ma bëgg yéen ñëpp yéen ñëpp laaj ñu santal di le président Ali Baba Sall. mon frère le procureur général de la coalition Yewwi Askan mon ami Cheikh Tidiane Dièye mon ami Moussa Tine ma sœur Maïmouna Bousso ba ci ma sœur Aïda Mbodj nga waxoon na nekk ay te nekk ma leen di wax yéen waa des na ndaxte maa ngi ñëw am na comme man dama am benn culture politique ak culture étatique bi ngelaw li ñëwee yóbbu ñu mal Aliou Ndiaye maire bu nekk ministre ma ne ko mu liggéey Thank you.

bu wootee jotee muy lu mat cinquante ñu woteel ko ba pare mu wan waa ci bi gannaaw il faut le repousser bañ leen ko ñu ne ko buñ wootee léegi am pour am fay la loolu ngeen jëlee ko bi pour gagne le département de Linguère au soir pour vous je suis là vous accompagner mais lu wóor nga topp na ko ci alors donc monsieur la Ousmane sant bi aw ma seen fay wax naa ko lu dellu ñaar li ngeen ma def ak ni ngeen ma jàppee mun leen a am fu ma toll parce que jàppee wu leen ma pour base politique yéen xëy na dana am gis ci man loo xam ne yaakaar naa ne nekkul ci man ngeen fab jox ma lépp di ma présider loo seeti réunion ma déglu maam ci ko waxee ma wax leen Khalifa Babacar Sall président ne man maa binoo lépp lu góor ci defal wàllu gorom defal ngeen kon la. mà được, kon yéen ngeen maanaam yéen la damaa bëgg ngeen fayal ma ñii li ngeen leen di fayee mooy gën được, am yaa dina dem na loolu daal danaa bu ma ko conférence day di dem maye la ndax ñu dem par deux parce que gars yi du ma leen bay moom ànd ak ñoom dem pour que ñu ñëw lii nga xam ne gis nañ ko ñu raaxee ko mu jeex rek incha allah jërë ngeen jëf merci

poussière bi ñii du ñu nekk ci naaj bi ñii du ñu jël seen nelaw ak ko mais góor góor la gis nga góor góor rek lay doon suñu suppléant yi ni ñu jëlee suñu bopp la leen jëlee xam nga néew na nga gis ñi nga xam ne duñu ay candidat ñuy def une tournée bi nga xam ne mu ngi leen di mener un peu partout mais image yooyu biñ ci gënoon bañ que nous taw moi, jàkkaarloog la tête de liste nationale moi, au Sénégal qui est sénégalais d'ici et d'ailleurs mais je voudrais qu'il sache que cet homme-là est un homme bien. cet homme-là est un homme qui aime le Sénégal il est un homme qui aime l'Afrique il est un homme qui se sacrifie pour le peuple sénégalais. Il a fait ses études comme nous tous. Am son diplôme dans une grande école. Servir l'administration. Macky Sall à partir d'une signature il le dimanche Quel se qui à ci Quel Quel qui se loolu dit Le nga sais que tu fais sa cursus scolaire universitaire def sa carrière sans faute un président jékki-jékki jël bigam ak fëyam dàq la mais yàlla jeexul yàlla bu lay defar di la defaral fu nekk la lay jaaree tàccul ma la tête liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi le président Ousmane Sonko ki di ngeer ñoo ngi leen di am mbégte teew fii tey ànd ak mbooleem seen leaderu Yewwi Askan Wi te bëgg waa ni xam ni li ngeen gis ci leader yi échantillon kese la ñi fi newul it nga seeni base di campagne waaye ñoom ñëpp tey ñi ngi lingeer ak yéen wàllu régime génn ci génn ci ba tey dix ans plus tard kenn mësula jóg yëkkati lu mel ni lu xaw a niroog dossier sax ne dañ koy toppee le président Habib Sy kon loolu fierté la war a doon ci Linguère parce dafa delloo si li ñu xamee woon waa Jolof mooy dignité mooy bañ mooy fierté mooy njub mooy gëm sa bopp kon ñun tey dañoo kontaan trop ci nekk ak moom te nag dafa lim lenn lu ndaw ci bilan am mu dégg ci biir ful bi mu am ku ci yokk ne te sàccoo suuf Linguère te sàccoo suuf Linguère xam ngeen ni nekk maire ba jóge fa te laaloo suuf sa lu ñuy compter biir Sénégal kon après moom dinaa remercier conférencier leader yëpp nag waaye tey di nga ma may ma beral la ko tuuti gi nga xam ne toujours mooy takkal nit ñi ay mbubb muy le président Déthié Fall Déthié Fall mooy la chenille ouvrière de la coalition processus bi yëpp ci loxoom la nekk

le peuple mature bëggatu leen les ci politique xam leen di leen le xaste saaga nit ñi politique politique xam-xam la yor réew du dans toutes les grandes démocraties pour élection je heure bii nit ngi débat ci plateau je veux dire, majorité ñu Sénégal Nous avons une majorité ceeb diwlin suukar ak électricité ak ndox ak gaz dina wàññeeku ci Sénégal ak leneen ñoom ñu dem ci télé yëpp ne ñun dañuy wax lu ñu neex on vend du vent ñu ne nan rek mën naa mënuma am na lu ko mën rek rek mooy nañu organiser un débat public te taami mi toog man ma toog ku nekk andi mbiram ñu teg ko bu dee ñemewuñu ñun mun nañu jël ñeneen ñu ñuy teg te dinañ leen duma ba Sénégalais xam ne duñu seen morom bu ñu ko bañee nag bu ñu ko bañee nag Sénégalais yi yeewu nañu ci bañ jàkkaarloo bi kooku moo amul programme daw na ñun nag ñu ne mën nañ ko dinaa def du ma def jox leen ñu majorité assemblée nationale xool.

arbitrage soo yoree koppar amul benn état ci àdduna bu yor koppar bu mat li mu bëgg yëpp même États-Unis yorul koppar bu ko doy moo tax day def Chine yoru ko keneen ak keneen waaye dina yàlla jox ñu ne mat na cinq mille et quelques milliards yow yaay def arbitrage est-ce que yow sa priorité mooy tabax ay pont ay autoroute ay stade ay ay ay ay arène nationale Voilà, est-ce que cette priorité mooy jàppale Sénégalais ba ñu arbitrage bi moo tax ñu ne budget bi buñ ko ci ñun bu budget intégré wu li nga priorité Sénégalais yi ko seconde lecture def amendement il faut nga dugal ko budget parce que Sénégalais yi sonn nañu tari nañu loolu su nañ ko def priorité. parce que dañ la xoj tuba bi dañ leena a xoj banque mondiale xoj leen FMI xoj leen kul abal ay gët nak mo lay joxañ fay xoolal ñom ñoo leen di wax ni ñun tuba bi suñu priorité du seen ndaw ñi am liggéey suñu yoon newu ci suñu priorité du ngeen am ay hôpitaux yu baax suñu yoon newu ci du mbay mi dox du seen économie seen kom kom dox parce que loolu baaxul ci tuba bi suñu priorité mooy comme ñun dañ nañ ba suñu économie bloquée dañuy bëgg suñuy entreprise ñun ñëw mën a am liggéey ay marché ci yëg dinañ leen defal xaalis mais su ma la defalee xaalis maa lay wax lan nga ciy def su ma la joxee xaalis am naa benn société bu tudd Alstom fi mu ne nii dafa daanu ba mënatul dem damaa bëgg nga def benn autorail boo xam ne 40 kilomètres la jox ko Alstom jox ko 1500 milliards pour moom mu xoggaliku mais est-ce que loolu mooy suñu priorité ñun moo tax. Macky Sall dafa cuune xamul mënul te tardé na Sénégal dafa tardé réew mi ni mu tardé réew mi sax xamu leen ko fi mu ne nii njëkkante inauguration lay def pour moom Sénégal Sénégalais yi bu ñu ko gisee ñetti weer yu ne ñu ne inauguré na benn affaire rek dañ naan wuu waajaa ngi liggéey dañuy inauguré mais ban impact la am ci yéen ban impact la am ci yéen est-ce que am lu mu oyofal ci tey la embouteillage gën a bëri Ndakaaru am ngeen li tax loolu su fa tabaxoon téeméeri pont ak juróom-ñett du tax problème bi rek réglé boo bëggee problème Ndakaaru réglé da ngay fexe ba kenn ku nekk fi mu dëkk mu am fa lu ko fa téye parce que kenn kenn demul Ndakaaru par plaisir ñàkk pexe rek moo tax nit ñi dem fa waaye su fexe woon dañuy wax territorialisation des politiques publiques te mu nekk suñu programme bu fexe woon ba kenn ku nekk fi nga dëkk nga am fa as tuut un minimum boo xam ne ci liggéey ci faju ci njàng ci ak yeneen ak yeneen xam nga ni kenn du bàyyi Linguère naan maa ngi dem Ndakaaru kenn du bàyyi Daara maa ngi dem Ndakaaru kon loolu moo tax lii muy def ay perte temps la fii TER fii autopont fële ba pare di ko def ci anam yoo xam ne taw sax bu amee pont ba daanu parce que yàkkamti na inauguré pour ñu ne ah Macky ngi liggéey xamna ku bëgg liggéey foy commencé fexel ba mbay mi bax ba leen lépp li ñuy lek duñ ko jéggaane ci biti fexel ba cham ci bax fi li ngeen lañu nek nekk xam naa li may wax fexel ba nap ci bax fexel ba am ay industrie yu transformé liggéey liggéey ndaw ñu am liggéey kenn ku ne am lo téye sa poos nonu la ñuy tabaxee réew waye réew do ñu def ay tapalé rek maa ngi defar dem jëm ñaajo defar fa quelques immeubles ku romb ne immeuble yooyu lu mu jëriñ Sénégal ban njëriñ nga am ci yéen ñi nekk fii kon nag mbokk yi Macky Sall mënul ba ma leen ko wax ngeen xam ngeen di mënul ndax 10 la yor réew bi 10 ans ci 10 ans yooyu est-ce que am na lu changé Linguère fii est-ce que am na lu fi soppi 10 du da du ndaw rek 10 ans ko yor réew war nga war a defar lu bëri. moo tax ñu ne leen bu ñu juum ci enjeu wu élection bi am na ko wax léegi mbirum inondation gis nga bu ñu demee assemblée nationale bu ngeen ñu joxee majorité bokk na ci commission d'enquête parlementaire yi ñuy njëkk a teg 700 milliards yi mu ne def na ko ci inondation yi te ñëpp xam nañ ne xaalis bi da koo lekk moom ak ñu ko wër dinañ ko leeral ba mu leer nañ. parce que Ndakaaru bi mu def li ëpp ci alal boobu bu wisee sax wis waa Ndakaaru ci biir ndox ma feneen ak feneen ci Sénégal noonu moo tax ñu ne leen élection bii dafa am solo mën naa ne c'est des élections les plus importantes de l'histoire politique du Sénégal bu ñu juum ñoom duñu campagne de duñu sol dañuy xaar ba mu des juróomi fan wala ñetti fan ci élection bi xaalis bi ñu sàcc milliards yi ñu sàcc parce que man maa ko wax ay sàcc lañu ñoom xam ngeen ko yéen ñu ne ko gën ñoo xam ne démb barki démb dara yoruñu ko tey ñuy wër yor ay mallette d'argent di ko distribuer xaalis boobu fan la jógee xam ngeen ni mooy seen nen boobu lépp bi waroon rek suñu problème moom la jël di ñëw di jox nit ñi 5000 ak 10 000 naan leen voté leen loolu fi la jeexul ci Sénégal Sénégal ci malheur ak ci guutale yi dëkk. waaye waay waay mbokki Sénégal nit da ngay bëgg sa bopp nit soo koy fal da nga koy fal parce que bëgg na réew mi d'abord parce que loxoom set na wicc soxlaalul alal askan bi dërëm parce que am na xam-xam am na gis-gis am na programme bu ngeen gisee nag Yewwi Askan Wi yi ci daje xam ne ay kàngam ci nekk te ñépp bëgg réew ñii tëj nañ leen kaso ñii euh, euh, dàq nañ leen seen liggéeykaay ñii ñu ngi leen di saaga suba ngoon guddeeg bëccëg te pourtant